Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf xeex ba ci assemblée nationale jeexagul ba léegi réew mi quotidien xëyaat ci tey wax ci déclaration de politique général bu ñuy xaar ci Ousmane Sonko yéenekaay bi di xam ne ni kon moom jiital Pastef daal dafa mel ni dañu ko fas yéene forcé mu daal di amal lu ni mel bëgg ko wala ñàkk ko bëgg fukki fan ak benn ci weerub septembre bi lañu ko jàppal waaye waaye wi askan wi nee ñu mukk du ca dal ndaxte lii day wane ni assemblée nationale ci boppam dafay salfaañe li nga xamante ne moom mooy règlement intérieur am ci boppam Sud Quotidien di ko ci feelu ne majorité parlementaire bi moo ngay forcé Ousmane Sonko jàpp nañu fukki fan ak benn ci weerub septembre bi ngir mu daal di amal ci mode fast track li nga xamante ne moom mooy déclaration de politique général waaye bis boobee nga xamante ne conférence des présidents ñoo ko tàmmu méngoowul ak li article 97 bu règlement intérieur bu assemblée nationale ci boppam di xamle ndax ci boobule article nañu gën caa néew juróom-ñetti fan mooy app bi nga xamante ne assemblée nationale ci la war a yëgal li nga xamante ne moom mooy bisub déclaration de politique générale mu mel ni kon beneen coow bi judduwaat ci assemblée nationale ñeel déclaration de politique générale ndax Walf Quotidien mu ngi ñuy xamal ni jamono ji te ku ci nekk ak sawdat conférence des président jàpp na fukki fan ak benn ci weeru septembre Pastef moom jàpp fukki fan ak ñett ñaari date moo tax l'info yéene kaay jàpp ni daal lu jëm ci de politique générale bu premier ministre Ousmane Sonko ndax li xew ci assemblée nationale ba tax laas yéene kaay ne jaayante pexe dëgg la diggante majorité parlementaire bi ak ñi ngànk nguur gi jamono ji li xew ci assemblée jamono ji Vox Populi nee na weesu na pexe ndax tension dëgg moom la ñu fa nemmeeku Benno Bokk Yaakaar mi bëgg am ndamam bu mujj ma ngay wane boppam bëgg forcer premier ministre mu daal di amal déclaration de politique générale fukki fan ak benn ci weerub septembre bi yéene bi fësal sax kàddug Abdoul Mbow xamle ni premier ministre ci boppam ñu ngi koy xaar bu baax a baax te bi la yoon na fexe ba ba mu ut benn lay ku ci nekk ak li muy lay muy exécutif ak législatif loolu tax na ba Sénégal jamono ji mu tàbbi ci ab crise institutionnelle bu ñu sukkandekoo ci enquête yéenekaay muy wax sax ci njeexital yi nga xamante ne solution assemblée national war na ko mën a jur coowal assemblée bi jur na féewaloo dëgg diggante Macky Sall Diomaye Faye ak Ousmane Sonko l'observateur moo ni jàngate ndax nee xeetub complicité bi nga xamante xamante ne gisoon nañ ko ci ñoom rawatina gannaaw élection présidentielle bi dafa mel ni léegi tàbbi na ci defante dëgg li ko waral nag bokk na ci seen jaar-jaar bu yàggul dara ci jamono ji nga xamante ne Ousmane Sonko ak Diomaye ñu ngi nekkoon ci opposition bi Barthélémy Diaz mi nekk ci boppu mairie bu Ndakaaru Les Échos yéenekaay mu ngi xamal ni démb xëy na béccab bilangom doomu Jean-Paul Diaz bi fësal li mu liggéey ci wàllu gu yaram wàllu njàng mi wàllu tàggat yaram ba ci sax li mu dimbale ci askan wi ay réalisation Barthélémy Diaz fës tamit ci le soleil yéenekaay aan bi di ñu nettali tamit li njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay di def ca FOCAC 2024 ca réewub Chine ak njiit la di Xi Jinping nga xamante ne namm naa xëpp xaalis bu bëri ci Afrique ndax xayma na lim fi war a def ci wàllum mbëbët mu toll ci juróom fukki milliards de dollars le quotidien xëy ak ñun ci fi këru diine tollu ci Cheikh Omar Diagne gannaaw kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko moo tax ma Madiambal Diagne bi di xam ne ni kon moom directeur des moyens généraux bu présidence de la République république tax na ba Touba ak Tiwaawoon jamono ji mer ba futt la def ay kuréel yi nga xamante ne ëmb na sax ay taalibe jamono ji porté nañu plainte ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Omar Diagne ci boppam Rewmi People moom dikat ci sargal bi nga xamante ne njiital groupe promo consulting di Mbagnick Diop def na ko yenn ci ay liggéeykatam ni ki démb mooy Jacques Mactar Gomis Mamadou Diawo Diallo Ndeye Kumba Moro ak Mouhamed Ba nga xamante ne fukki at ak lu teg gi ñu ñuy xaar nag ñu wane seen